borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne xéwal yu nekk mu ñu koy jox moom borom boobu ñu koy sant ci diine lislaam di ko sant it ci ngëm bi ñu may waaye di ko sant ci li mu may suñu dëkk ak dëkk yu bari ñu nekk dëkk yoo xam ne jàmm nga fa salaama nga fa waaye ñu ngi koy sant moom borom bi subhaanahu wa taala ci xéwal bi mu ñu may ba ñu mën a woor weeru koor taxaw tamit ci nax ne moom mooy euh, jàng alquran mbokk yi si yàlla bésu tey bii de di bésu feet day wane màndarga ci mandarga islam day wane mbégte diggante jullit yi waaye day wane ne dañu nekk ñoo xam ne ñu tedd la day wane ne dina xam ne moom mooy yàlla subhanahu wa de dafa nekk ku bëgg lu yomb si ñun waaye day wane ne jullit dana war a ànd nekk benn lool di wane lan màggaayu xeet wii yàlla ma ne dafa bëgg si ñun lu yomb waaye bëggul si ñun lu jafe su ko defee ñu mën a yeggal na xam ne moom mooy koor waaye mën ñëpp ñoo xam ne dañuy tudd yàlla subhanahu wa taala mbokk yi weeru koor bi mu jeexee bi mu tàmbale ba léegi gis na ne nit ñi de dañu nekk ñoo xam ne ñu xoroon loon ci jaamu yàlla subhanahu wa taala nga gis dañ daan tëpp ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye nekk ñoo xam ne it jëf ci baax dañ ko daan def lu bari da ko doon gis jàkk yi dafa daan fees dell moo xam ay góor la moo xam ay jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam julli naafila la moo xam julli farata la jàkk yi nga gis ne ay conférence dafa daan am ay tafsir quran dafa daan am nit ñi di njëkkalante di jox nit ñi pour ñu dog yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàngul ñëpp mbokk yi de li nga xam ne mooy koor dafa nekk daara joo xam ne de day jàngal nit ki pour moom mën avancé ci wàllu lu ne kon nit ki de loolu koor day tax moom ragal yàlla subhanahu wa taala koor day tax moom fuglu ne yàlla subhanahu wa mu ngi koy xool fu mu nekk waaye koor day tax mu nekk koo xam ne ku am yenn bu sedd la moo xam bu nekkee ci mbooloo moo xam bu nekkee moom dong la kon day fay koor day jàng nit ki mu mën lan tee boppam su ko defee ay jikkoom yu bon sax mu mën koo teet waaye koor dafa nekk loo xam ne dafay suuxat ci jullit bi mu xam ne kat moom kat am na ci benn xeet bu mbokk muy xeetu lislaam kon koor gi bu jeexee juy dafa war nekk koo xam ne xol bu rafet la yor juy dafa war nekk koo xam ne yoon bu gën a jub lay topp muy yoon yu sallallahu alayhi wa sallam ndax moo doon jubluwaay bi muy ragal yàlla yàlla mu ne fartaan naa ci yéen koor na ma ko farla woon ci ñu neen jiitu su ko defee ngeen am ragal yàlla kon mbokk yàlla yi ñoo xam ne suñu dëkk bii Sénégal de nit ñi dañ nekk ñoo xam ne li ko seetlu ñu bëgg diine lañ nekk ñoo xam ne tamit ñu bëgg la la jikko yu baax waaye kon looloo tax kon euh, boobulee dal boom ci dëkk bi boobule mbaax dañ ko war a sàmm liñ koy sàmmee nag bokk na ci yii di ñëw bu njëkk mooy ñun ñëpp ñu jàpp ci alquran jàpp ci sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare ñu déggee ko déggu sahabatul kiram ak ñoom ñu yar su ko defee bu ñu amee wuute suñu diggante bu ñu ne ma sàmbala bu ñu ne ma dembala waaye leen jëlluwaat ci alquran ak sunna loolu mën ñu ko teef euh, teqil ci teqaleel ci teqale bu gën a rafet comme ni ko yow subhanahu wa taala waxee ci suratu nisa waaye it ñu la xam moom mooy wéetal yàlla di tawxiid dañ koy dëggal wéetal borom bi subhaanahu wa taala ci ay jëfam moom ne lii moom dong ko mën keneen mënu ko waaye wéetal borom bi subhanahu wa taala ci turam ak ay melukaanam waaye tamit wéetal ko ci jaam bañ ko war a jaam moom dong bañ ko bokkaale dara loolu tax kon ñu bañ a bàyyi war a bàyyi lépp loo xam ne bokkaale la war a bàyyi lépp loo xam ne njabar la ak lépp loo xam ne day yàq sa pas-pas ci wàllu ngëm yàlla subhanahu wa taala waaye nit ko mën a nekk koo xam ne day respecté li xam ne moom mooy pilier islam ak ngëm nekk koo xam ne lépp loo xam ne dëkkale bu yàlla sàmm moom nekk ko xam koy sàmm waaye mu ànd ak leen jikko yu rafet waaye loolu bu ñu ko mënee am ci dëkk boobu faw jigéen ñi jàpp ci mooy jigéen seen bopp ñu nangoo topp yaa subhanahu wa taala nanga muu seen yaram ni ko lislaam waxee woon nanga nekk ñoo xam ne dañuy tënku ci loo xam ne mooy ndigalu yàlla ak yonentam ñu nekk ñoo xam ne du ñu wuññeeku nekk ñoo xam ne duñu jël seen yaram lu nekk ñu taf ko ci ngir soppe ndax ne moom mooy mbindeef yàlla gi ndax lan ndax dañ jàpp ne loolu day gën a taaru waaye loolu bu amee ba pare diggante waay dencante yi dañu war a dencante ci anam boo xam ne bu rafet la anam boo xam ne dafa tegu ci mbëggeel tegu tamit ci yërmante waaye tegu ku nekk rek respecté sa moroom su ko defee ku nekk sa àqu moroom nga taxawee ko loolu bu ñu defee kër ga dana nekk loo xam ne lu baax la bu ko defee kër googu kon xale ba fa juddoo ñu mën ko yar yar boo xam ne yar la bu tegu ci ngëm yàlla subhanahu wa yar la bu tegu ci yaakaar yàlla subhanahu jaamu ko yar la boo xam ne dafa tegu ci jëf-jëf yu baax moo xam ci biir kër gi la du fa yem bu génnee dem école ba am jikko yu baax yooyu bu ñëwee si jàkk yi am jikko yu baax yooyu si mbedd mu am jikko yu baax yooyu loolu dana tax koon dëkk bi gën a rafet waaye ñu nekk ñoo xam ne dañuy moytu teet bépp bàkkaar boo xam ne bu ndaw la wala bu mag la ak wax yoo xam ne waxu mbóosóor la nañ ko koor jàngale woon xam ne tax nañ yàgg ñu naanuñu te wàññiwuñu dara bi ci mujjee ci taxawaay bu njëkk mooy ñu fexe ba julli ñi nekk ñuy booloon bu ngeen xoolee tey jii àdduna wërngal këpp daanaka la ci ëpp ci jullit yi bu doon waxee nga ne téeméer boo jël la ëpp juróom-ñeent fukki ak juróom ci ñoom jullit ñi nekk ñoo xam ne ñuy euh, feeti bés bii loolu dafa tax nit ñi nga xam ne jullit ñi benn lañ waaye bennoo benn mooy de ñu bokk la nga xam ne mooy suñu balluwaay muy alquran ak sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu bokk la nga xam ne mooy suñu ngëm-ngëm te mooy ngëm-ngëmu saxaaba yi mooy ngëm-ngëmu yonent sallallahu alayhi wa sallam li yàlla waxoon fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw bu ngeen gëmee lii sallallahu alayhi wa sallam gëmoon ak i sahaabam teg ngeen ci yoonu yëpp waaye ñu bokk la xam ne moom moo ñuy atte muy lan ay alquran waaye ñun ñëpp ñu dellu ut benn modèle kenn ku ñuy roy muy kan muy yónent Muhammad sallallahu alayhi muy roy waaye di gën a rafet loolu bu ñu ko defee de suñu dëkk bi ak adduna bi yëpp dañ nekk ñoo xam ne ñu mbooloo ñu loolu taxoon waa ji ba muy jàngale pas-pas ba mu ko jàngale ba ci suuf mu ne pas mooy pas-pas imam Malik mooy pas-pasu Shafi mooy pas-pas Ahmad mooy pas donte ñoom seen i jiir aw na wute nee na waaye loolu mooy seen gëm-gëm kon ñun bu ñu ko amee dañu nekk ñoo xam ne bu ñu toppee seen yoon ñu jub la ñu doon waaye bu ñu toppee leneen nag dañu nekk loo xam ne ci ndëng te la mbokk ñuy wax ne suñu dëkk bii de dafa da am loo xam ne ci wàllu dal am loo xam ne ci wàllu sécurité ak bokk wiñ ko bokkee am na mbir yoo xam ne yàlla may nañu ko yoo xam ne moo gën a am doole fuuf lépp loo xam ne mbell yoo xam ne jàpp nañ ne mu ngi si suñu suuf si te am dal boobu mu bañ ñoo rëcc moo gën fuuf te loolu moom responsabilité boo xam ne ñi ñu jiite ak ñu jiite ñëpp ku nekk am na ci wàll ndax nit ki dund ci dëkk boo xam ne amul or amul gaz amul zircon loolu mën na nekk ndax yomb na ndax am na dëkk yoo xam ne amuñu ko te ñu ngi dund waaye dund dëkk boo xam ne amuloo sécurité amuloo dal loolu jàppal ne loolu mënul nekk sa wàllu diine lu avancé sa wàllu àdduna waxi noppi la ndax nag boo mbir yoo xam ne bokk na ci li tax ñu gën a saxal euh, jàmm joo ci suñu réew bokk na ci mbir yi ñëw bu njëkk bi mooy jullit bu nekk waaye tamit citoyen bu nekk moom mu yëg ne ci boppam ne moom de responsabilité la dafa am responsabilité ci wàllu diine indispensable ci wàllu àdduna su ko defee moo gën a dëgëral loo xam ne moom mooy jàmm bi am suñu dëkk dëkk bi gën a dëgëral dal bi fi am waaye gën a dëgëral kóolte gi si am te loolu la koy may mooy moom ci boppam mu teet moytu lépp loo xam ne dafay jur fitna yàlla waxoon ni ci alquran mu ne ragal leen fitna boo xam ne de bu yeewoo de ña nga xam ne du ñoo ko sooke du yem si ñoom te ngeen xam ne nag moom borom bi subhanahu wa taala de mbugal lu tar la yal na ci yàlla musal yow sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan ni ki fekkente ne xëy na ci dëkkam am jàmm yaramam xëy ci dëkkam feebarut jàmmam ci dëkk bi yàlla subhanahu wa jox ko dépense bés boobu daa mel ni lépp loo xam ne nekk na ci àdduna bi xëccal nañ ko ko jox nañ ko ko waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite di gouvernement yi war nañ nekk ñoo xam ne bu ñuy jël ay décision dañu koy xoolaat mu nekk décision yu baax décision yu wóor yoo xam ne wóor na ne bu ñu ko appliqué rek doon duñu yàqal kenn ay droit am duñu yàqal kenn ay liberté moo xam nit ki ci boppam la moo xam tamit ay parti politique la mu nekk mbir yoo xam ne bu ñu ko yee lépp loo xam ne amoon nañ ko jàmm di jiitu dañ koy gën a dëgëral waaye ñu nekk ci langue politique yi feese beneen wàll bi wala ñu tuddee société civile wala ñu tuddee activiste ñoom it dañu ne war ne am war ne wane na ñoom am nañu responsabilité ba nga xam ne lépp li ñuy laaj dañ koy laaj ci moyen seen àq waaye dañ koy laaj ci dal lépp loo xam ne dañu bëgg ne justice def dañ bëgg mu taxaw dañ koy laaj waaye ñu nekk ñoo xam ne dañu xam ne kat lépp loo xam ne war na leen rek mooy ñu fexe nu ñu sàmmi ndax ne moom mooy jàmm boobu noonu waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu yoon nekk ñoo xam ñooy jugé ñoom it war nañ nekk ñoo xam ne dañu war teg seen kanam mooy ragal yàlla subhanahu wa teg seen kanam njub teg seen kanam xool ne man ki may atte sama yoon nekku ci fu mu nekk sama yoon nekku ci ban part la bokk wala ban diine la bokk la ma bëgg mooy dëgg nekk loo xam ne dafay jib su ko defee kat bu ñu jël décision daan nekk décision boo xam ne lu baax la ndax kat ñu xam ne njub boobu de mooy lépp loo xam ne dafay garantir droit njub boobu mooy garantir liberté adduna bi waaye njub boobu dafay nekk loo xam ne day tax dëkk bi nekk ci loo xam moom mooy dal ak jàmm yaa doon wax mu ne yéen jullit ñi doon leen ñoo xam ne de ñu dëggu ngeen ci kanam borom bi subhanahu wa rawatina bu ngeen di seede donte ki ngeen di seedeel seen mbokk la donte ngeen seedeel seen i wayjur la wala seen i jegeñaale seedeel dëgg rek donte dafay dal ci moom mu ne kooku boo jàppee ne ah dafa omal wala nga jàpp ne ah ki amul dara nee na xamal ne yàlla subhanahu wa taala kat moo ëpp droit ci yow mu ne kon bu la topp sa bànneexu ba kenn ba nekkoon da ngay jéng ndax mu ne boo defee loolu kat xamal ne moom borom bi subhanahu wa lépp loo xam ne yéen a koy def de moom xam na ko waaye ndaw yi ñoom ñu nekk ñoo xam ne ñu am dañuy mën a maîtriser seen bopp lépp loo xam ne dañ koy kaas moo xam dañuy marche moo xam dañuy sitting ak lu ñuy def nañ ko def ànd ak dal waaye nañ ko def fexe teet lépp loo xam ne dafay jur moom ay yàq rawatina yàq yoo xam ne léeg-léeg kat ka nga yàqal jàppal nga ne nguur gi la te fekk bien privé la wala sax la nga jàpp ne nguur ngay yàqal fekk na yàquloo ko yow sa bopp nga yàqal ndax benn bis boo toj xamal ne yàqaloo kenn ci nguur gi waaye yow mi ciy duggaat yaa nekk koo xam ne yaa yàqule waaye nit ki tamit réseaux sociaux yi ñu bàyyi ci xel baax ku nekk nga koy utiliser naam lu baax la ñu xam ne nag paaka la boo xam ne paaka ñaari boor la dana jëriñ dana lor waaye ñu xool baax rawatina information yi ñu ciy joxe ak yu ni mel de balaa nga koy partagé mu wóor la nekk na loo xam ne lu jub la wóor la nekk na loo xam ne lu baax la waaye ñu gën a moytu ci réseaux sociaux yi di ci partagé image yoo xam ne yu bon la rawatina yi xew ci mujjeg jamono gii loo xam ne ay rey nit la dee di ci tuuru ba nit ci kontaan loolu nag loolu nekk loo xam ne dañ koy téyeet faw ñi nga xam ne ñoo jiite yor presse bi muy journaliste yi ak ñi nekk seen organe ñu nekk ñoo xam ne ñoom it dañuy jàpp dina li nga xam ne moom mooy boobu la xeex su ko defee kat ñoom ñuy wane ci seen i ak di wax seen i rajo wala seen réseaux sociaux yi loo xam ne day jur jàmm loo xam ne day jur tal ci daa xam ne moom mooy dëkk bi rawatina bu ñuy joom ñoom seen bopp bu ñu amee information ba koy relayer wala ñu am ay discussion mu nekk loo xam dafay tegu ci yoon nga xam ne ki nga taxaw di waxal du jàppane ne fii nga féete wala fii nga féete ba pare nga tax lenn sa kanam mooy ne intérêt dëkk bi moo la war a gënal sa intérêt yow moo la war a gënal intérêt organe de presse ba nga nekk loolu boo ko defee danga mën sàmm baax na mooy sa liggéey waaye da nga mën tax dëkk bi nekk ñoo xam ne dañuy dal waaye tamit ñoo xam ñoo jiite moo am ci wàllu diine la wala ñoo ci wàllu administration wala ñoo xam ne am nañ place boo xam ne mën nañ conseiller ñuy jiite ñoom it ku nekk si ñoom war def devoir am ndax yoon sallallahu alayhi dafa mu ne ad diinu an nasiha mu ne diine jii dafa nekk loo xam tegu ci la la laayante biir rawatina laayante biir ak ñoo xam ne ñoo ñoom ñoo jiite ak jullit ñëpp kon ñi nga xam ne ñoo ñoo jiiti wàllu diine war nañ joxe ay laay biir yu baax yoo xam ne dafay ñeel ak dëkk bi waaye dafay ñeel ñoo xam ne ñoo jiite su ko defee dëkk bi mën na nekk loo xam ne jàmm dafay am dal mën fi am àndoro bu ñu ànd mu yàgg lool mën fi nokk yàlla na ko yàlla defal mbokki si julli yàlla tey ñun ñu ngi feete ci jàmm yàlla na yàlla subhanahu wa nangu lépp waaye bu ñuy fàtte mukk suñu mbokk jullit ndax yow fi nga nekk si jàmm am na sa mbokk jullit boo xam ne mi ngi coono rawatina rawatina fële ci baytul maqdis mu nekk Jérusalem nga xam ne ba foofu dafa mel ni rek ña fa nekk dëkk fa dañuy wan ne ñoom ñoo am doole ña fa nekk dëkk fa nga xam ne fekk nañ fa ay palestiniens dañuy wan waa jullit ñeen faale ñu leen ndax balaa ñuy mën sonal julli rek muy weeru koor rawatina sax ci fukki fan yu mujj yi nit ñi di nekk foofu di julli di jaamu yàlla ñoom ñëw feef di leen rey waaye loolu boo ko kaasee ba pare da naan waa xanaa jullit nekk ñu fi wala ana communauté internationale ana aussi yi nga xam ne ñoo waroon taxaw xeex-xeex boobu su ko defee ñooñu ñu bàyyi leen si jàmm ñu xam ne coow li am foofu noonu fekk nit ñi ñu ngi koy def naan keewu diggante arab la ak israélien wala diggante xeet xeet dañuy sonn rek bés bu nekk dinañ gis ñu rey téeméer téeméer si ñoom te ñoom duñ leen faale faw ñu xam ne gëm ne loolu suñu diine ci la bokk dañ ko war a xeex ndax ñun jullit ñi ñetti bërëb yi gën a seel ci kaw suuf ñoo ko moom benn Makka la benn Madina la ba ci mujj mooy baytul maqdis fa la sallallahu alayhi wa sallam jóge woon dem isra wal kon loolu dafa nekk loo xam ne war nañ ci taxaw waaye nag ñu ñaanal leen ñoom yàlla na yàlla subhanahu wa taala may xol mu ñëw apa si ñooy yàlla may leen dëgër laay yàlla may leen ñoo xam ne kat dañu gën a ragal yàlla ndax lépp leen ci yàlla fay ko loo xam ne الجنة اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن واجعلنا ممن صام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وممن غفر له ما تقدم وما تأخر ومن أتعاقد من النار اللهم أعد علينا رمضان أعمالا أديدة وأزمنة أديدة واجعلنا من المقبولين الفائزين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ بلادنا وبلاد من الفتن والمحن وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن ومن علينا بالأمن والاستقرار على الحق والأرض والاستقامة ونفع الإباج والبلاد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل عام وأنتم بخير السلام عليكم